alari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg ya na maa jiin wax naa ko daa am experience, daa am experience am na lu muy génne ndeysaan am na lu am na lu muy sol expérience ba daa bëri ndeysaan mu ngay sol benn tiset tisetam oh, papa ndeysaan li rafet na lii rafet na. mais Maguette Seck man li ma lay laaj ci combat bi rek laay ñëw. dama gis ne booy bi da nga ko indil booy bi da nga ko teel a indil ci bëre bi bu jël la ba yaakaar ne lamb ji jeex na nga bañ ne ko foofu jeexagul. sit am arbitre atte ma ne lu tax mu àtte mu waat leen ngeen bëre ndax lu njëkk li sit am na fa wala non sit am na at moo sif la ñu tabayante di mais man suma arbitre woowaatee damay ñëwaat ba xool am appareil waaw noonu la demee mais suma arbitre bàyyi woon foofu dama koy daan mais nga daan ko jël bi ko daan tey daan ko ba dëpp ko waaw mais noonu la lamb man lamb waxut yow xam nga ni bi ngay doog a jógee dëkk ba di ñëw man nga njëkk nga njëkk a jël ci référence waaw waaw bu loolu weesoo kii waaw kii soo gisee ma sol ko kii man man man man du ma sakk jëf kii xale la ah, booy la boo xamante ni man dama koy ñaanal yàlla mu ñëw si làmb loolu sama biir xol laa ko tibbee booy la boo xamante ni man damay tëdd sama kër commandé lu ñuy toog këram billahi wallahi wa taalaay ma ne ceebu jën laa bëgg man dama am estomac su ma ne ko ceebu jën bu weex laa bëgg da toog bu ñu doon bu xonk da koy changé kon kooku kon kooku noonu moom man maa ko deseel mais moom deseelu ma papa sama xol la nekk sama doom la suma deret la maa ngi koy ñaanal nag su fekkee nar naa amati combat man di daan yàlla na ma yàlla daan man moom mu daan bi jaay Seydina Muhammad te lii may wax nii sama xol laa ko tibbee parce que moom moom moo desal jox na ma cër lu ma ko wax mu def ko lu ma ko tere mu bàyyi ko kon ça veut dire que mooy mhm. xëy na boppam moo tëju rek mais kooku suma doom la. papa voilà papa yàlla na ko yàlla lafal cat. mais mais looy wax ci dimanche parce yoon wi daa mel ni. Balla Gaye naa sidit bi yee man maa koy def. waxoon naa ko nest dinaa def jom def fula def fayda mu am ndam ni laa ko wax ni ko li koy yee man maa koy def te incha allahu rabbi bu subaa bu dimanche dinañ xam Balla Gaye kii Balla Gaye eh, eh, eh, kii sama papa la kii kii wuy ma kii wuy ma Wili Ngara def naa fa deux semaines yóbbu na ma Guinée yóbbu na ma fu ne kii taal otoom ak benn xaritam bu ñuy wax ah Ousmane ak Guèye Guèye moo yor Guèye moo yor Guèye moo yor prison bu fukkat kii kii kii kii mënu ko fay moo kii temps booy kii booyam la ñu waaw grand booyam la mais mais man ni may jàppalee yàlla na yàlla yàlla defal cat. mais sa diggante ak père ba ak Mansour ba dégg naa ko. non non père Mansour xaalis bëri la ma yónnee. père ba suma papa père Diaw loo ko wax. Eh, père Diaw kooku père Diaw man man boo damaa yéex a dégg ay waxam déglu ay waxam moo tax lamb yu am importance yëpp ma ñàkk ko. parce que démb si guddi dafa wax ak man wax ak man ba ñu xuloo. waaw. barka alxuraanu kër sama xol day wax ak man da wax ma sama xol tooy sama téléphone ma dugg ci salle de bain bi di sang moo waat ma jot keneen keneen ki di wax mu ne ko duul jox ma Maguette Seck billahi wallahi wa taala ma jël mu ne ma eh man li ma la wax te vocal yi ma envoyé bu la neexee mën naa la ko wan te barke alxuraan li ma wax loolu laa bëree seeree sa loxo aj ko daxoog ci dox ci kawam mu def lu mu bëggul nga daan ko barke alxuraanu karim te man dama bokk si làmb man buuxantewu ma de njëkkantewu ma samay rakk nañ bëre jox ma làmb moo tërëri mais xoolal guddi guddi bu far bay incha allah rabbi salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ko réew soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci